comme ni ñu leen ko waxoon ci programme bi mooy kàddu ki nga xam ne mooy euh, porte parole euh, xalifatu saaxibil fayda moolaaya Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim ñes di ki nga xam ne itam mooy kilifa moral bu fond modi fond bu Medina Baye euh, fadilatu Cheikh Mouhamadul Mahi Ali Cissé kàddoom moo agsi comme ni ñu leen ko waxee woon ci programme bi kàddoom nag. tey mi ngi jëm ci loo xam ne moom lu xam la wax dëgg yàlla mooy solidarité dimbalante waaye nag waa kër cheikhul islam ku leen di wax li wóor mooy ne ñu ngi koy cadre ci lislaam kon duñ man lu mooy ànd ak fadilatu cheikh Mouhamadul Mahi Alioune Cissé mu demal ñu tey ci li nga xam ne mooy lef yu ñu ko jox ci gàmmu gi nga xam ne mooy gàmmu jëppal ni ko bàyyi santaane woon xalifa bi confirmé ko ansaaru diin taxawee ko ci njiital cheikh Mouhamadul Munhamina Ibrahim Niass kooku programme am ak li nga xam ne mooy kàddoom ci la ñuy ànd ak yéen kon sëriñ bi e, àdduna bi yëpp ñi ngi déglu lan mooy solidarité ci lislaam waaye ñoo ngi koy dégloo ci toog ron tàntu yonent bi sallallahu alayhi wa muy 20 avril comme ni ko bàyyi santaane woon ca Dakar ansaaru diin di ko taxawe bismillahi rahmaani اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله ñu ngi sant yàlla bu baax gannaaw julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mbooleem taalibe yi fu ñu mën a nekk di ndokkeel ñépp tim ci turi alxalifa Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass ci xew-xew bu màgg bi nga xam ne mu ngi jublu si muy gàmmu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne ñu ngi ko daan defee ci Dakar ci jëppal ci Kër Baay waaye tombeek ci weer bi nga xam ne bi mu juddoo ci ñaar fukki fan ci weer avril mu mel nii niñ mën a gàmmoo ci guddi fukki fan ñaar ci weer rabiul awal noonu lañ mën a gàmmoo ci ñaar fukki fan ci weer avril ndax moo tombeek juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feetul juddi yonent bi sallallahu alayhi wa rek doy na jàngale ci solidarité defee ko tim ci ron tànt Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu doy na jàngale ci solidarité yonent boobu nga xam ne yàlla daf ko yónni yónni ko mu nekk yërmaande nekk xettali ñeyal mbooleem mbindeef yàlla yi ndax wa ma illa rahmatan lil alamin la ko yàlla wax yërmaande googu dafa feeñ ci mbooleem lu nga xam ne société bi ñu ngi jëm soxla ko waaye feeñ ci lépp loo xam ne doomi aadama daf ko soxla ah social ak maadute ci wàll social dafa nekk loo xam ne ay boroom xam-xam ak i philosophe philosophe yi jiitoon ñu ci nekk am nga gisin boo ko gis boo xam ne boo demee ba ci biir da ngay gis ne du servir doomi aadama comme ni mu ko soxla ndax am na ñoo xam ne dem nañ droit ba sori ci nga xam ne moomee nit ki moom kenn dañ ciy xaabaabal ba nga xam ne duñ sóoraale keneen am ñoo xam ne tim dem nañ gauche xaabaabal ci loolu wane ne nit ñëpp war a séddoo lépp te ñi defee ko ci façon boo xam ne tim dafay nekk gént goo xam ne àddina masta ak nit ñi ci gént googu ñi mën koo amal yàlla nag yónni yontu yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam mu indi li nga xam ne ki bind àddina bind nit moo ko tëral mu tëral yoon ci jàppalante ak dimbalante boo xam ne nii ku nekk danga ci gis sa bopp te kenn du ci ñàkk sa am am wala sa droit ci sa moomeel moo tax diine jooju ma ne yàlla mi nga xam ne moo bind te wax ne alaa yaalamu man xalaqa wa huwa xabiir ndax ki bind xamul lim bind aakay ah xam na ko kooku nag moo tëral yoon boo xam ne mu ñëw ci làmmiñ yonent bi sallallahu mu jàngal ñu naka lañ wara a ak naka lañ war a dimbalante yàlla tabaraka wa wax ci alquran ne wa ma illa rahmatan lil alamin ma yàlla tabaraka wa wax ne wa taawanu ala al wa wala taawanu ala ngeen dimbalante ci lu baax ak ragal yàlla bañ a dimbalante ci bàkkaat ak noonu doomi aadama ji mooy xalifa yàlla ci kaw suuf yàlla tim daf koo xalifaal ci moomeel yi nga xam ne moo nekk ci kaw suuf waaye du ne doomi aadama ji moom moom moomeel yi dañ ko cee xalifaal moo tax alal bu ci lislaam di wax daf lay wax ne dundaleel ci li nga xam ne nii yàlla daf la cee kuutal waaye duun yaa ko moom wa anfiqu mimma jaalakum mustaxlafiina fihi na nangeen dundale ci li nga xam ne yàlla daf leen a def ngeen di kuutal ci loolu xam nga koo xam ne daf laa dénk alalam ne la dundalee ko nii nam ko buggee nga ko war a defee waaye duun ni ko bëggee bu fekkoon ne jaam yépp yàlla daf leen a bàyyi seen moomeel ñi koy dundale comme nu leen neexee ak seen liberté mën naa am duñ àgg ci solidarité bi nga xam ne moom la lislaam soxla ci nit ñi waaye bam la joxee alal ji daf laa xamal ne alal ji yow moomuloo ko yàlla moo ko moom moo la ci kuutal te moo la sant tim naka nga ko war a dundalee mu jëm ci ay jaamam yi nga xam ne moo tax mu amal alal jooju moo tax booy xool ci alxuraan baatab alal li gën a bëri dañ koy laaf mu jëm ci mbooloo danga fekk ñeent fukki aaya ak juróom-ñaar yoo xam ne toujours alal ji ci mbooloo mi lañ koy jëmale waaye duñ ko jëmale ci benn nit léeg-léeg mu jëmale ko ci yàlla ci boppam wa aatu min maalillahi alladi aataakum joxe leen ci alal yàlla ji nga xam ne yàlla moom moo leen ko jox wala tuutu sufaha amwaalakum te fekk boobu xaalis boobu muy wax kat ay jirima ko moom waaye buñ tolloo ci mën a gu ñuy gérer seen xaalis alxuraan dafay wax ne bu leen jox ki nga xam ne xàmmeegut ba mën a gérer xaalisam bu leen ko jox seen xaalis bi yéen te fekk xaalis bi du sax moom mooy xaalisam la moom waaye loolu alxuraan daf lay jàngal ne xaalis bi ndeke société bi moo ko moom te loolu àddina bi nga xam ne ci xel rek lay tegu àgg nañ ci ndax ku demoon ca buntu police léegi teg fa un million ñu gis la nga jël almet di ko lakk defe naa ne bala ñoo dem fenn police bi daan la fekk foofu jàpp la waaye loolu mooy gis-gisi lislaam ci alal ji kim nekk ci loxoom moomu ko yàlla moo ko moom moo tax kim nekk ci loxoom mënu koo defee nu ko neex waaye yàlla tegal na ko ci yoon boo xam ne bu ko ci tegoo dëgg-dëgg dana nekk bunt boo xam ne nii jaam yi danañ ci mën a euh, jëriñu ku nekk man cee jot sa wàll ndax looloo tax yàlla teg farataay asaka nga xam ne kooku duut yow sa coobare li ngay saraxe loolu sa coobare la waaye asaka wareef la boo xam ne ba lislaam di taxaw niñ war a taxawee daf daan am baytil maal mu am ñoo xam ne ni ñoom ñooy jubaatu zakat ñoom ñooy lañuy ñuy recruter ñi dem di seet képp koo xam ne am nga alal ñi jël alal yoogu jël ko yóbbu ko ci baytil maal seet ñi ko soxla ñi jox leen ko te loolu façon solidarité la boo xam ne jafe na nga am ko ci feneen parce que ndimbale nit baax na lool waaye dimbale nit te du yëg ne kenn ma dimbale moo gën a neex ci nit te buñ doon defee asaka ni ko lislaam bëggee woon kii génnee asaka bi dana génnee asakaam mais du wax ne maa jox ma demba ci sama asaka dara te du tere sàmbaak demba ku ci nekk dana jot ci asaka li nga xam ne nii moom la moom mu nekk loo xam ne tim yàlla fu mu tuddee ne taxawal leen julli aqimu salaata wa atu zakaata la ci teg ci lu ëpp vingt-huit aaya yoo xam ne nii waxtu wu nekk ñooy méngoo te loolu yëpp li muy jur mooy dafay barkeelal alal yi borom barke alal yi seen alal waaye itam daf leen di musal ci mer ñi nga xam ne nii amuñ ndax bu fekkee ne ñi amut ñi am génne nañ seen xàq jox leen ko ba liñ tolloo li ñu war a lekk dañ ko am li ñu war a naan dañ ko am lu ñu war a dëkkee fu loo xam ne nit daf koo soxla loolu yëpp danañ ko am mu des buñ soxlaa nag lu extraordinaire ñoom ñu utali ko seen bopp mais bu ñu doon dundalee société bi comme ni ñu lislaam bëggalee boobaa nit ku nekk dana am loo xam ne moo lay fajal sa soxla ku nekk dana am loo xam ne moom lay dundee moom ak waa këram ku nekk war naa am euh, fum mu fu dëkk ku nekk war naa am lum suturloo yàlla tabaaraka wa taala ñi nga xam ne dañuy tere sax ndimbal yi nga xam ne nit daf koy soxla daf leen a boole ne seen melokaana ci melokaana yi ñi weddi yàlla la ndax wa yamnaawna al maawun jikko yi ñi nga xam ne nii ay weddikat yàlla lañ arayta lay yukazibu bi diini wa dalika alladi yaddu al yatim wa laa yaxuddu ala taami al miskin fa waylu lil musallin alladina hum an salaatihim saahuna alladina hum yurauna wa yamnaawna al maawun yàllaa ngi méngale kiy weddi diine ak ki nga xam ne dafay doodal ab yatiim boole ko tim wala yaxuddu ala taamil miskin waxul rek sax ñàkk dundale rekk bàkkaat la waaye dem sax ba bokkoo ci ñi nga xam ne dañuy xiir nit ñi pour ñu dundal way ñàkk ñi sax kooku yàlla daf koo boole kiy weddi yàlla ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون الذين يراؤون ويمنعون الماعون fi muy tuddee tim ñi nga xam ne ni du ñuy julli ndax saha ani salaati mooy duy julli carrément foofu la tuddee ki nga xam ne tim dafay aaye jëfandiku yi nga xam ne nit ki daf koy soxla muy ndaw muy ndox muy xorom muy suukar muy loo xam ne rek nit ki daf koy dimbanikoo mu mel ni kuy tere loolu ci lislaam yàlla dafa jël jikkoom boole ko jikkooy kiy weddi yàlla tabaraka wa taala nga xam kon fan la lislaam àggale dimbale ak dimbalante nga xam ne danga ko war a def yow ci sa bopp mais bul em foofu waaye danga nga war a sax sonju ñeneen ñi pour ñu def ko ndax fii ci suura bi ñim xas mooy nga xam ne wala yaxuddu ala taamil miskin du xir nit ñi pour ñu dundale ñooñ safara bañ leen laajee maa salakakum fi saqara qaalu lam naku min almusallina wa lam naku nutcimu almiskina wa kunna naxuudu maa alxaaidina wa kunna nukazibu bi yowmi ddin xata ataana alyaqin fa ma tanfaahum shafaatu shafiin lan moo leen dugal safara ñi ne bokku ñoon ci ñuy julli ñi daanuñ julli waaye du loolu rek de walam naku nut'imul miskina bokk ñoon ci ñuy dundal miskin yi dañ doon xuus ak nit ñi rek ci ay caaxaan di weddi bési pénc ba dee dikkal ñu nga xam ne kon fa yàlla waxee ñi nga xam ne dañoo duñ julli ba tey foofu lay tuddee ñi nga xam ne ni duñ dundal duñ dundal seeni miskin kon nga xam ne jàppalante bi nga xam ne moom la société bi soxla ci lislaam daf ko soxla comme ni nga xam ne noonu la soxla jaam yi di julli ak di oor ak di sellal seen diggante ak seen borom tabaraka wa taala ndax diine ji boo ko seetee ñetti yëf rek la aqida mooy pas-pas bi sharia mooy shariatu bi axlaaq jikko yi nga xam ne nag mooy jikkoy yi sharia boobu jikko yooyu jikko yu rafet lay nekk loo xam ne nii ku ko am ku ne dana ci mën a xaj donte yow amuloo alal ji ñépp mën a xaj danga am jikko joo xam ne nii ku nekk mën na cee xaj moo tax lislaam bokk na ci lim dimbanikoo ci solidarité mooy rafetal jikko yi ba nga xam ne jaam bi dafay am mbëggeel ci mbokki jaamam ndax laa yuminu ahadukum xatta yuhibba li axiihi maa yuhibbu li nafsihi kenn ci yéen du gëm lu may ba demee ba bëggal mbokkam li nga xam ne moom la bëggal boppam nga xam ne loolu kon emul rek ci matériel waaye li nga bëgg sax ci jàmm li nga bëgg ci sa njaboot danga koy bëggal sa mbokk euh, jullit moom it ci këram bëggal ko ko ci ay njabootam waaye lislaam dana éeg ak yow ci dayo boo xam ne ëpp na rekk bëgg dafay égg ak yow ba àgg ak yow ci dayoo gënale sa mbokk ci sa ci sa bopp wa yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasata loolu la yàlla taggee almuhaajirin alladina tabawu daara wal imaana yuhibuuna man haajara ilayhim wala yajiduuna fi sudurihim xaajatan ma utu wa yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa ñi nga xam ne dañoo xadu seen kër yi mais duut kër rek lañ xadu dañoo xadu seen kër yi waaye xadu nañ seen xol yi ci imaanu billahi tabaraka wa taala bëgg ñu hijra ñëw ci ñoom ñooñ mooy ansaar ñi nga xam ne jaayante nañu yonent bi salallahu alayhi wa pare pour defendre ko ci lépp loo xam ne nii dañ ciy defendre seen bopp waaye jaayanteeg moom ci lu neex ak ci lu naqadi jaayanteeg moom ne danañ topp ci bu neexee ak bu jafee jaayanteeg moom ci danañ dundale bu bëree ak bu yombee nga xam ne loolu moom mooy jaayante góor yi ndax njëkkoon na ñooy jaayante jaayante boo xam ne jël responsabilité yooyu yëpp bokku ci woon waaye bañ demee nag balaa yonent bee ñëw jaayante bi biñ tuddee ne mooy jaayante góor ñi bañ jaayanteeg yonent bi sallallahu alayhi wa mooy danañ dundale ci buñ jafeelee ak buñ yombalee danañ dundale danañ topp ci bu neexee ak bu jafee danañ défendre yonent bi sallallahu alayhi wa ak kii toppam ñi nga xam ne ñu ngi ñëw nar a ànd ak moom ci lépp loo xam ne dañ ciy défendre seen bopp di ci défendre seeni njaboot loolu lañ jaayante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam a nangoo gàddaay pour ñëw ci moom moo tax bañ ñëwee loolu dañ koo dëggal dëggal goo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo leen jàngal yoon bu ñu war a dëggalee loolu ndax dafa def mu aaxaat mbokkoo diggante muhaajiriin ak ansaar muy loo xam ne dañ koo soxla woon ci waxtu woobu ñu toll waaye ay jullit fu ñu nekk waxtu wuñ tolloo ci xaal buñ soxla lu mel ni mu aaxaat boobu rek dañ cee war a àggaat ndax mufassiriin yi wax nañ ne àggoon na ci doon noante sax njëkk laay miraas di wàcc waaye dëggaloon nañ ko ci dimbalante ci ci zaahir ak ci baatin dimbalante ci seen am-am waaye dimbalante ci seen xam-xam dimbalante ci seen yar dimbalante ci seen expérience bu bu jiitu ndax ku mel ni Abdourahman ibnu Awf nga xam ne Saad ibn Rabi moom doon moo doon mbokkam ba Abdourahman ñëwee saad daf ko wax ne ko am naa ñaari jabar seetal koo ci bëgg ma fase ko nga takk ndax ñoom génn nañ bàyyi seeni jabar génn nañ bàyyi seeni kër am naa ñaari kër seetal boo ci bëggu ma jox la suma alal a ngi nii ma xaajoo kook yow ko xam nga ne jox na mbokkam lépp lu am waaye Abdourahman tim duud jullit bu yaanaani daf ne ko ana rajulun taajirun baarakallahu laka fi ahlika wa fi maalika wa fi daarika ana rajulun taajir dullani ala suuq yal na la yàlla barkeelal sa kër gi ak sa njaboot gi ak sa alal gi man liggéeykat laa rek wan ma marché bi loolu mooy xamale ne maanaam nit ku ànd ak xam-xamam ànd ak wéram mu ngi ànd ak alalam mu dem ci marché am ay fan ñëw sol mbubam seet liggéey na ba am na xaalis ba takk na seet ba sol mbubam kuy seetu pour wane rek ne moom it muminul qawi la ndax ndimbal lum neex neex manal sa bopp moo ko gën a neex ma ne niñ dimbalantee ci seen alal comme kii paree def lii muy def nii xam nga ne Salman ibn Faris Salman al Farisi moom mbokkam bi ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokkaleeg mooy Abu Darda Salman dafa ñëw kër Abu Darda fekk jabaram la gis gis ko mu ngi sol mbubb yi bàyyi ndiku sufu ne mu ne ko ah lii lan la mu ne ko xam nga sa mbokk mi moom amul soxla ci àddina maanaam abu darda amul soxla ci àddina ñu toog tuuti abu darda ñëw mu indi añ teg wala ndékki Salmaan ne ko lekkal mu ne ko man dama or Salmaan ne ko déedéet man duma ma lekk fekk lekkoo ah abu darda dog kooram gi comme koor ak coobaree la nit mën na koo dog ndax yonent bi sallallahu alayhi wa daana xëy rek ne ndax kër gi daraan fi bu fi dara nekkee mu lekk bu fi dara nekkul mu mu xor Ah, selmaan Salmaan dogloo ko mu dog ñu dem ba guddi tàmbale waaye guddi gi jot Abu daa jug ne dafay naafile Salmaan nag foo jëm mu ne ko damay naafile mu ne ko déedéet tëddal ba ci kanam tëdd tëdd ba ci kanam bu nga jugaat Salmaan ne ko tëddal ba ci kanam mu dem nag ba guddi gi sori Salmaan ne ko léegi jugal ñu naafila ñu jug naafila xam nga ku ku ku ku nelaw ba jox sa yaram bi lim moom boo jugee pour naafila doo kayang-kayangi foofu te inna allaha yuridu ida amila ahadukum amalan an yutqinahu yàlla bëgg na kenn ci yéen lu muy def mu xéwénal ko ndax yonent bi sa alayhi wasallam dafa mas dugg ci jumaam mu fekk buum guñ takk ci jumaa ji mu ne buum gi lan la ñu ne ko sa doom Zeynab bu moo ko fi takk mune ne Zeynab lan la buum gi mu ne ko léeg-léeg bu ma buggee jaamu yàlla te may tayal moo tax ma koy takk pour jugee pour pour yëkkati ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne dee leen jaamu yàlla ci seen waxtu kontante kon mu mel ni loolu dars bi Abu Darda doon jàngalee mu ngi noonu mu ngi ko bëggoon a jàngal tim bañ a xóotal ci diine ndax mën ngaa commencé léegi ne naa fi la guddi baax na baax na ku ko mën guddi gi yëpp lépp la la bàyyi wax ci ci tafsir bi mu ne kun najman fa in lam tastati fa kun qamaran fa in lam tastati fa kun shamsan ndax jaal na layla wa nahaara xilfatan liman araada an yazakkara aw araada shukura bu muy firi aay ji daf ne jaam bi na mel ni biddiw bu ko mënee maanaam biddiw bi bu jant di so rek mu ngi fi ku man loolu dundal guddi gi yëpp bismillah waaye xam nga ne loolu ñëpp mënuñ ko ku mën loolu mu ne melal ni weer wi ndax weer wi dana am ab diit ci guddi bu mu fi nekk fàddu boo melul boo bu la bu guddi gi yëpp rawee nag bul wax ne guddi raw na ma ba duma jaamu yàlla sax ci bëccëg boobaatim li la raw ci guddi nga dabaatal ko ci bëccëg alaay taxaal abu darda li mu def ak selmaan abu darda dem nettali yonentu bi sallallahu doxoon digganteem ak selmaan yonentu ne ko selmaan wax na la dëgg inna li rabbika alayka xaqan wa li ahlika alayka xaqan wali zawrika aleyka xaqan wali nafsika aleyka xaq ma maanaahu sa borom am na ci yow xaq mu yàlla tabaraka wa taala sa njaboot gi am nañ ci yow xaq sa bakkan bi am na ci yow xaq ñii ñëw di la ziyaare si tim am nañ ci yow xaq kon bu fekkee ne tëraloo sa waxtu ni nga ko war a tëralee man ngaa góor góorgóorlu góor góorlu ba jàpp ne man jox naa suma borom xaqam ci samay julli te fekk booba xaj nga sa njaboot seen xaq man ngaa góorgóorlu te fekk yow xaw xaj nga sa jëmm ji xaqam fekk bu nekk yàlla daf koo soxla ci yow moo tax da ngaa war a am balance bu ko defee àddina bi baax àllaaxira bi baax te loolu mooy njàngaleem yonent bi loolu rek sallallahu alayhi moom la Salmaan doon jàngal Abu Darda jàngale boobu moo tax saxaaba yi xeeyoxoon ñi ñi leen di melal ne ruhbaanu leyli fursaanu nahaar yi ñoo daan dundalkati guddi yi waaye ñooy ngawarkati bëccëg yi dañ dundal guddi waaye du tere ñi mën a jox bëccëg xàqam mu mel ni dimbalante boobu ci maanaa moom la Salmaan doon def ak mbokkam mi Abu Darda nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi moo leen bokkale kon dimbalante la ci zaahir ak dimbalante la ci baatin lislaam diina la goo xam ne dafay oote jëm ci société bi ku nekk taxawul sa morom ci li nga man mu mellal société mellal société ab jullit naka lañu war a jàppalante mu mellal ko mu mel ni melow benn yaram masalul muminina fi tawadduhim wa taraxumihim ka masalil jasadil waxidi ida ishtaka minhu te daa lahu saairul jahazati fi sahari wal ni jullit ñi way gëm yàlla yi niñ war a melloo melokaano biñ mar a melokaano mooy dañoo war a mel ni benn yaram ci seen bëggante ak ci seen yaramante dañoo war a mel ni benn yaram nga xam ne yaram bi lu ci metti rek yaram bi yëpp yëg ko mbokkoo ci lislaam bokk na ci lim jëfandikoo pour yombal dimbalante ndax bu fekkee ne bëggal sa mbokk li nga bëggal sa bopp ci gëm yàlla la bokk te yow gëm yàlla rek moo lay musal te boo bëggalee sa bopp li nga bëggal sa bopp rek boobaa lu ko manqué ci li mu waroon a am te nga mën ko cee taxaw rek doo ko sàggane yàlla dañu fàttali ne mbokkoo xéewal la ci xéewal yàlla yi wadkuru nicmatallahi aleykum id kuntum aadaan fa allafa bayna qulubikum fa asbaxtum bi nicmati ixwaana wa kuntum ala shafa xufrati min annaar fa anqadakum minha dee leen fàttaliku kon xéewal yàlla ba nga xamee ne da ngeen a nekk ay noon mu benn leen buy fekkee aw sa mu ngi diri sembaanam ci mbooleem way gëm yàlla wan leen na xéewal mbokko mbokkoo xéewal la bu tukkee ci yàlla tabaraka wa taala dañ ko war a sàmm te dañ ko wara jox xaqam lépp loo xam ne nii ëpp na sa soxlaay bopp rekk say mbokk te mooy mbokki jullit ñi dile ñi la ñi nga bokk ak deret ñoo gën a ay ceew wa ulul arxaami baaduhum awlaa ngi lay jàngal naka nga war a baaxee ci mbooleem société bi naka nga war a dimbalanteeg ñëpp ba yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax ne ayuma arsatin asbaxa fihim imruun jaaiun faqad bariat minhum zimbatullah bépp déngare boo xam ne kër goo xam ne am na ku fa fanaan xiif bi maanaa fekk waa kër ga ñoom lekk nañ ba suur dëkkaale koo xam ne amul lum lekk te boolewuñ ko ci lekk googu yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam nee na kuléer yàlla dañ na ci moom wax ci beneen xadis laysa minna man baata shabaana wa jaaruhu jaaihun wa huwa yaalamu bokkut ci ñun maanaam bokkut ci jikkoy jullit koo xam ne nii dafa fanaan guddi suur këll te fekk mbokkam mu ngi fanaanee xiif te moom mu ngi xam ne mbokkam mu ngi fanaanee xiif yasalunaka maada yunfiquuna qulil af yàlla daf na yonent bi sallallahu alayhi ñu ngi lay laaj lan la ñuy dundalee ci suñ alal yàlla ne ko neel afu afu mooy lu des gannaaw boo xamee ne yow say soxla yi taxaw na mu mel ni lépp lu des rek maanaam ñeneen ñi ñoom ñoo ko moom noonu la lislaam yaatalee ci dimbalante ak taxawal société bi ba nga xam ne ku nekk danga mën a am loo xam ne nii moom ngay dundee ku nekk war war ngaa mën a am loo xam ne nii moom ngay oddoo ku nekk mën ngaa am loo xam ne nii say njaboot mën nañ cee taxawee ba nga xam ne ñii duñ lottu ñii suur këll Seydina Aboubacar bañ ko falee dafa wax ne fal ngeen ma te du ne may ki gën ci yéen waaye dafa wax ne danaa jël alal yi way am am yi alal delloo ko ci ñi nga xam ne nii dañoo ñàkk maanaam ñi ñàkk ñi il mu fexee ba nga xam ne danañ am ci alal yi borom alal yi loo xam ne nii ñoom danañ ko mën a euh, euh, dañ ci mën a taxawee Abu Zarin ànd naag koo xam ne moomeelam la woon rek ñu gis ko muy sol li muy sol di lekk li muy lekk ñu ko gis di jaaxle yonent bi sallallahu seeni moomeel sax seeni mbokk lañ na leen di solal ci li ngeen di sol di leen lexal ci li ngeen di lekk maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo leen moomoon sax boo demee ba kooku mu gore sax ci li ngay lekk nga koy leyal ci li ngay sol moom nga koy solal noonu la lislaam ñëwee pour saxal euh, solidarité bi nga xam ne nii du du nekkati rek loo xam ne nii da nga koy def pour plaisir waaye dafa mujj nekk maanaam euh, ponk ci sa ponk diine ji ba nga xam ne yow boo ko sàgganee rek dem nga ba nga xam ne yow sa diine euh, sànku na lislaam rek lañ gis mu indi benn forme ci dund ak dimbalante loo xam ne ba léegi àddina ak seguñ ci mooy waqf bi nga xam ne bokk na ci bunt yi nga xam ne lislaam mu ngi ko doon def pour dimbalee way aajuñ am na waqful ahli am waqful yi wax waqf eh, ahli mooy boo xam ne maanaam eh, borom alal joo xam ne nii dafa jël lenn ci alalam waqafal ko waa ay njabootam nga xam ne pour ëllëg kenn du ko jaay kenn du ko donn kenn du ko eh, soppandiku ci leneen waaye la cay jugee dañ koy jëriñoo mais cosaan bi daf fay des buy ay kër yu ñu luyee buy ay lu ñuy dëkkee ku ñëw rek mën naa dëkk mu nekk loo xam ne nii dafay continuer ba dappet te loolu yépp ci njàngaleem yonentu sallallahu alayhi wa sallam lañ ko jëlee mën naa nekk waqful xayri boo xam ne maanaam euh, famille bi sax duñ ko moom waaye dañ koy bàyyi mu nekk loo xam ne ni dafay continuer nit ñi di ko euh, nit ñi di ci jëriñu di jëriñoo ci réex bi maanaam li nga xam ne moo ci génnee tabax bi mën na faa des l'islam àgg na ci ci façon waqf boo xam ne nii ma ne ba léegi civilisation yi ñuy wax ni tey àggugu ci am na ñoo xam ne doon nañ def ay waqf yoo xam ne dañ ko fi bàyyi pour tabax juma pour tabax daara pour dafa ay jàng am na ay waqf yoo xam ne dañ ko fi doon bàyyi pour mool ay téere rek am na ay waqf yoo xam ne nii ay jàngu yoo xam ne dañ ko fi bàyyi te pour nga xam ne liggéey na lu rëy ci lislaam buñ ne la borom xam-xam bu mel ni Ibnu Khaldun ci waqf yi la génne nga xam ne waqf am na lu mu def ibnu haytham buñ ne la ci waqf yi nga génnee nga xam ne waqf am na lu mu def buñ ne la ku mel ni euh, sultaan al aashiqina ibnu al farid ci waqf yi la génne nga xam ne kon wax fu nekkoon na fi di taxawal dimbale umma bi ci loo xam ne gouvernement yi tëwoon na leen pour ñu def ko dem na sax ba am ci buur yi ñoo xam ne bañ demee ba kàccoor ci seen commencement yi dund bañ demee ba ci seen mujjug dund bañ bëggee baax bëgg a jub bëgg a jubbantiku dañoo def ay waqf yoo xam ne nii moom lañ def pour tuubee ko ak tim delloo delloo delloo euh, umma bi seen alal ji nga xam ne ñoo ko moom mu dem bañ amoon ay waqf ma ne yoo xam ne demoon na ba ci ca ca ca ca Dimishq mu am ay waqf yoo xam ne maanaam jigéen juy nàmpal sax bu xëyee am na place nangam bu fa demee mën naa jël meew boo xam ne nii euh, pour pour nàmpal ay doomam am na waqf yoo xam ne dem nañ ba àgg ci defar ay waqf yoo xam ne koo xam ne dafay def ay palaatak ay boolak ay bagages yi nga xam ne dañ koy jëfandikoo ci kër nga xam ne léegi tey xale bi nga xam ne ñu ngi ko jël muy liggéey ci kër euh, euh, patron yónni ko mu yàq boolam wala mu yàq nangam mën naa jaar ci foofu rek ñu jox ko ko mu dem fay ko te du dem sax di waxal patron am naan ko bool ba dafa réere wala nangam fekk na wax fii mu ngi taxaw pour couvrir soxla yu mel noonu dem na ba am wax fu yoo xam ne dañ ko doon def ci opito yi sax jël ay ñoo xam ne dañuy ñëw sax di jàng di di wëy ay wëy yoo xam ne yu sedd la yoo rek pour oyofalal nit ñi li li ñuy wax tey naan stress dégg nga l'islam moo leen jiitu ci xeex ak stress ci koo xam ne rek ci hôpital la nekk sax ñoo xam ne day ñëw di wëy ay wëy pour neexal leen pour seen xool sedd mais passé nañ foofu daan nañ dem ba def loo xam ne pour faj feebarkat ñu feebar ñi psychologiquement maanaam ñaar ñoo xam ne dañuy gis aju feebar joo xam ne feebaram mu ko jaaxal ñoom ñuy dem di waxtaan fële di wane ne waa ji la ñuy jëw ah waa ji de eh, tey la gën a wér ci démb ah boo gisee tey ni mel nga xam ne feebaram bi fi mu ne nii léegi tey mu tàggook moom mu ngi ci jàmm am na jàmm fekk kooku dafa am ku def wax fu boo xam ne mooy fay ñiy def liggéey bu mel noonu dem nañ ba dugg ci àgg ci wax fu foo xam ne daan nañ am wax fu boo xam ne sax dañ naan euh, xayawaan yi maanaam euh, fas yi nga xam ne ñu ngi fi feebar wala gëlëm wala nangam nga xam ne seen borom amatu ci moom benn pexe te amatul ci moom benn njëriñ daf ko war a sànni rek ci àll bi amoon na wax fu boo xam ne loolu rek moo ko tax a jóg yooyu lay jël utal ko place boo xam ne danañ ut ay ñu fa nekk di ko toppatoo di leen jox lekk di leen jox naan di leen di leen di di sonne ci seen mbir ba ba ñuy ba ba wéree wala bu ñu wéru tim ñi dee ndax seeni borom soxlaatuñ leen ndax xam nañ ne dootuñ wér màggat nañ dootuñ jëriñ dara ñu jël leen pour dimbale leen pour taxawal Euh, société boo xam ne nii dafay nekk société islam boo xam ne nii société bu baax la amoon na wax fu yoo xam ne dañuy jënd ay takkaay ci jigéen joo xam ne nii dafa bëgg a euh, dem ci xew amul takkaay mu dem ñu jox ko mu takkaay ba rafet dem ci xewam waxtu bu pare ñëw delloo wax fam am na ñu doon def wax fu yoo xam ne dañ koy def rek bàyyi fi ni képp koo xam ne dafa bëgg takk jabar te fekk dafa am jafe-jafe mën naa jaar ci foofu mu jël rek ci ci alal jooju dem takkee ko jabar ku am bor amoon na wax foo xam ne pour ku am bor la am na ay euh, genre hôtel yoo xam ne dañ ko daan tabax mu nekk wax boo xam ne li du yu fi maanaam ñëw rek ci dëkk bi tabax fi lu mat fukki hôtel yoo xam ne rek da nga naan euh, gan daal bu ñëwee comme ganale ñetti fan la gan gu nekk am na droit wàcc fi ñetti fan bu paree nag mu dem seeti pexeem loolu yëpp ci jaari ndimbal la yoo xam ne eh, lislaam jàngale na ko jullit ñi daan ko def moo taxoon ñu àgg fi ñu àgg pour ñu bugg a delluwaat nag ci suñ doole delluwaat ci suñ eh, eh, démb bi nga xam ne moo gën démb ñëpp mooy ñi delluwaat ci pas-pasab lislaam boobu nga xam ne dañuy jëflanteeg yàlla ci ay jaamam yi ci jaamam yi xam ne ngërmaane yàlla ni nga koy amee ci julleeg or mën nga koo amee ci liggéeyal yàlla ci jaamam yi ne alquran wax wa hadaynaahu najdayn falaqtaxama alaqaba wa ma adraka ma alaqaba fakku raqaba aw itaamun fi yowmin di masraba yatiman za maqraba aw miskinan za matraba yàlla dafa wax ne doomi aadama ji jubal naa ko ci yoon mën naa ko yoon wi jëm ci àjjana yoon wi jëm ci ngërmaande yàlla tabaaraka wa taala wan ko yoon wi nga xam ne tim moo jëm ci safara yoon wi nga xam ne moo jëm ci halkare may na ko xel bu muy xàmmee lu baax ak lu bon hal ataa ala al insani xiinu min addahri lam yakun shay'an madkura inna xalaqna al insana min nutfatin amshaaji nabtalihi jaalnaahu samian basira inna hadaynaahu sabila imma shakiran wa imma kafura kon yoon woowu la ko wan yàlla na ba léegi doomi aadama ji bëtagut barrage bi bi nga xam ne moo koy tax a àgg ci yoonu yàlla bëgg boo doon xalaat ne luy barrage bi lu julli foor foor fii tudd julli fala taxamal aqaba wa ma adraka aqaba aqaba bi lan la waxut julli waxut or waaye fëkku raqaba goreel ab jaam ndax danga ko fekk ci jafe-jafe nga génnee ko ci loolu moo tax mu firee ko waxee ko fëkku raqaba waaye aw itaamun fi yowmin zi masxaba wala dundal ci bés koo xam ne nii dafa xiif muy yetiim bu la jege walla miskin boo xam ne dafa fëggule amul dara dem na ba yonent bi sallallahu alayhi wax ci dimbale wax ci dimbale yetiim yi wax na ci dimbale bi sifa amma ndax mën nafasa an axihi kurbatan nafasa allahu kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama képp koo xam ne yër yëral na dindil na mbokkam njàqare ak jafe-jafe yàlla dana ko dindil jafe-jafe ci jafe-jafe yowmal qiyaama yooyu nga xam ne moo gën a jafe lu nekk dimbale euh, yatiim beneen affaire la ndax dem na ba yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam wax ne ana kaafilul yatiimi fil jannati hakada nee moom ak ki nga xam ne mooy sàmm ab jirim ci àjjana nii lañ mel nii lañ mel maanaam nii lañuy leerowante rek ba dugg ajjaan kon diine ji xaqiqatan <coughs> diine yi dimbalante la Ibn mu dem na ba wax ne maanaam jullit bu demee ba xiif ba war a lekk medd wala mu war a lekk mbaam xuux wala mu mar amul lum lekk lum naan ba waral naan lu xaraam te mbokki jullitam mu ngi am dara am na droit xeex kooku jël lekk te boobaa bu ko kooku rayee moom at àjjana la jëm te bu rayee kooku tim kooku safara la jëm ndax kooku taaxi la dégg noonu la civilisation islaam àgg foo xam ne ni dëgg-dëgg buñ ko jëfandikoo comme ni ko war a defee kenn du am problème Omar ibn Abdul Aziz mi nga xam ne dañ koy wax xalifatul xaamis ndax maandu teem ñaari at rek nga def ci xilaafam waaye oomalal na umma bi yépp dem na ba nit dafay génnee asaka jox ko nit mu ne la man buur jullit omloo na ma am na at moo xam ne dañoo mujj jël xaraaj bi nga xam ne moom moo jugee ci Afrique muy Tunis jamono jooju mu nekk xaalis bu bari ba mu ñëwee ñiñ war a jox asaka yëpp koo wax mu ne am na dañoo mujj seet ñi nga xam ne ay moomeel lañu woon ñu jox leen ñu goreel seen bopp nekk ñu libre ndax dimbalante lislaam foofu la àgg ndax lislaam diiney gore la dafa fekkoon nit ñi di jaamloo nit ñi ci seeni façon mun te ñëw pour beddi loolu benn yoon waaye ngore rek la oote loo tax si naa amar waxoon ne ma tastaabatum naasa waqad waladatum ummahatum ahraran kañ ngeen jaamloo nit ñi te fekk seeni ndey yi jur leen ñi nekk ay gor bunt boobu mu nekk tim bunt bu yaatu ci dimbalante nga xam ne fekk nit koo xam ne nitay patron mooy wax mooy def moo koy jox bu moo koy lu nekk rek ñu tënk ko ci nga ñëw dindi ko ci tinki boobu loolu la alquran tuddee fëkku raqaba muy diine joo xam ne dëgg-dëgg euh, mat na te rafet na ci xel rafet na ci xol mat na ci rooxo te ku ko sàmmtim da nga jaar ci yoon bi nga xam ne nii euh, mooy yoon bi nga xam ne nii ba léegi l'humanité seen gént yëpp mooy ñu dem ba àgg foofu moo tax dañuy barkeeloo ci fàttaliku dund yonent bi sallallahu alayhi wa fàttaliku euh, bind yooyu nga xam ne moo tax lislaam do lim do lislaam nag euh, il faut mu am ay ay góor ak jigéen ñu gëm yàlla ñoo xam ne nii ñoom ñooy taxaw di def ay jëfam di wax ay waxam di bàyyi ay tereem di xeñtu dund yonentu bi salallahu alayhi di xeñtu dund saxaabati rasulillahi salallahu alayhi wa sallama nga xam ne eh, raw nañ ñëpp ci dimbalante ndax seydna omar seydna abubakar siddiq ba mu ñëwee ci xaswatu mu'tata yonent bi di oote nañ dundale ci yàlla te loolu dimbalante la mu ñëw indi alalam yépp yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ah loo bàyyee sa njaboot mu ne mu ne bàyyee naa leen yàlla ak yonent bi toujours damay xalaat bàyyee naa leen yàlla ak yonent naa leen yàlla ak yonent Affan ci jamono amul majaa ci xilaafat seydna amar min Xataab radiallahu anhum ajmain nga xam ne nit ñi dañoo xiifoon ba nga xam ne seydna Omar dafa mujj da dindi atteeb ku dagg ku sàcc dañoo war a dagg loxo dafa mujj dindi atte boobu parce que nit ñi àggoon nañ ci xiif bay këf te ku pour këf ba lekk kooku kenn du la atte dafa am saxaabi bu ñoo xaatib ibn abi baltaat dafa am ay xaleem yoo xam ne ay feroom lañ mu sàgganee leen bañ jël benn gëléemi benn waaye rey ko lekk ñu jàpp leen indi leen Seydina Omar mu laajte kuy seen sang ñu wax ko ko mu ne seen sang bi mooy fay gëléem gi te daf ko koy diisalal sax te du def du àtte xale yi dara ndax ki leen waroon a jox lim lekk moo leen ko joxul moo leen sàgganee bañ agsi fii ma ne ci at bi nga xam ne xiif dafa am naa Ousmane dafa ñëw indi junne gëlëm junne gëlëm yoo xam ne yépp dafa ànd ak dafa sëf ay dund mu ñëw ma dina a Munawara ñépp nag commerçant yëpp daw ñëw ku nekk ñëw di wax li nga man ci marchandise bi ñu ne ko ñun de téeméer bu nekk mën nañ laa cee tegal juróom mu ne gis naa ko ma fay lu gën loolu ñii ne mën nañ la cee tegal fukk ñu ne gis mu ne gis naa lu ma fay lu gën loolu fukk ak juróom gis naa lu ma fay lu gën loolu commerçant yi taxawaat ne ko fii ñun rek fii commerçant kan moo la mën a fay loolu mm-hmm. mu kon yàlla bon mm-hmm. joxe naa ko fii sabilillah yàlla mi nga xam ne li muy fayee lu ci gën a néew masal ladina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi ka masali xabatin anbatat sabca sanabila fi kulli sumbulati miatu xabba wallahu yudaaifu liman yasha kooku dana fay ba fay benn juróom Seydina Ousmane ne man kooku laay jëndanteeg waaye du yéen oh. seetal junnee gëlëm yu sëf ci at moo xam ne nit ñi dañoo xiif nga ñëw indi ko jox ko nit ñi te laajuloo ci dara ndaxam laaj na ci dara ndax mu ngi ciy laaj ngër maa yàlla tabaraka wa taala te ci dundale rek la amee woon yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci moom maa dara Ousmaanu maa faala baadal yow ci dundale la amoon yonent bi ne yàlla man gërëm naa osmaan yàlla gërëmal Ousmane kon nag loolu ay jàngat la yoo xam ne waxtu nekk ñi am war nañoo di jàngaat bunt yooyu xam ne ku am li gën a baax ci yow gannaaw safara tey mooy ngay dundale ci yoonu yàlla waaye am xaalis bu bëri denc ko fële ñëw di wane ne yow da ngaa mën a wirdo wala dangaa mën a naafila naafila ak wirdo ñëpp mën nañ ko li nga xam ne ku am rek ko man yow loolu mooy sa jaamu yàlla bi gën a mag yàlla nañ ko déggee noonu am ay milliards ku ñëw nga joxe suba teel ku ñëwaat gannaaw gi nga ne ko sarax ba àgg na sarax ba génn génnagul bay àgg sarax ba génnagul bay àgg te yàlla société yi def na fi loo xam ne euh, nit ñi xañ nañ ci mm. waaye nit ñi nag ñoo ko jëlaat bu koo denc ay ruq te nañ xam ne li ñuy denc ci ay ruq moomuñu ko ndax yonent sallallahu alayhi wasallam dafa xëy bés ne saxaaba yi ana kan ci yéen la alali keneen gënal alalam ñoom ñu ne ko ñun ñëpp suñ alal moo ñu gënal alal keneen mu ne sa alal mooy la nga lekk ba mu rees la nga sol ba mu ak la joxe ci yoon yàlla waaye la nga bàyyi ci sa gannaaw alal yi alal yi keneen la mm. moo tax daal buñ delloo ci wa anfiqu mimma jaalakum mustaxlafiina fii borom xaalis yëpp nañ ko dégg te borom xaalis nag mooy ku am 1000 francs rek ku am 1000 francs rek dugg nga ci borom xaalis yi ndax 1000 francs 100 buy dimbale ku amut 100 francs na ci waaw waaw junne it junne tim euh, buy dimbale ku amul 500 xaj na ci ñaari junne noonu ba million noonu ba milliar noonu bu ñëpp ku nekk génnee ci li nga li nga man li yunfiq zu saati min saatihi ku nekk li man mu génnee ko boobaa jaam yi dañ nekk ci jàmm luñ soxla la ci waxtu wu nekk waaye soxla nañ ko ci jamono ji nga xam ne àddina bi yëpp nag tey ñu ngi jëm ci xeex ak mbas mi nga xam ne covid 19 wii nga xam ne euh, euh, mbas moo xam ne euh, kenn teeruwu ko kenn daralu ko waaye tey ji mu ngi indi ci àddina bi ay jafe-jafe yu métti yoo xam ne war naa tax képp ku nekk ku am dara rek war ngaa seet naka la nga am noonu naka nga ci xajale koo xam ne nii euh, xaju ci woon démb la nga doon def mu nekk extraordinaire mu jëm ci yow bàyyil extraordinaire boobu mu jëm ci sa mbokk ndax nit ñaa ngi soxla luñ lekk nit ñaa ngi soxla luñ sol nit ñaa ngi soxla luñ fajoo ñëpp war nañoo delluwaat tim ci solidarité bi nga xam ne moom la lislaam am euh, benn la loxo yi benn la xalaat yi déggoo dimbalante xeex mbas mi ñi nga xam ne ay docteur lañ ñu ngi ciy jéem liñ man gouvernement mu ngi taxaw ay taxawaay société civile bi nit ñëpp sëriñ si ñu ngi joxe ay misaal ci loolu waaye ku nekk rek yaa ci war a taxaw jàpp ne yow yaay ki nga xam ne yow yaay xeex loolu ci sa man-man boo mënul lu may yow nga set ne da nga góorlu ba mbas mi du jaar ci yow bay àgg ci kenn yow am na loo def boo manut lu may koo xam ne ni dafa xiif nga dimbale ko yow tim am na loo def boo manut lu may koo xam ne xam-xam bi mu war a am sax pour moytu xamul loolu nga dimbale ko ci loolu yow tim am na loo def ñu ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala mu dimbale ñu ci barke yonent bi salallahu alayhi wa sallama ci barke bu weeram wi mbas mi yàlla ko yàlla génnee ci réew mi yàlla musal ñu ci musal ci alam islaami musal ci euh, doomi aadama fu ñu mën a nekk ndax tey contact bi nga xam ne nit ak nit mu ngi koy am contact la boo xam ne kenn mënu koo limité te mbas moo xam ne ci contact boobu lay jógee kuy ñaan na nga ñaan yàlla seetal ko ci àddina yëpp loolu moo ciy musal ñëpp yal nañu ci yàlla musal yal na yàlla dimbale ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke Mawlana Cheikh Tidiane radiallahu ci barke Mawlana Cheikh Ibrahima radiallahu anhu salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu kon ñoo ko déggandoor solidarité ci lislaam Cheikh Mouhamadul Mahi Ali Cissé porte parole u xalifatu saaxibil fayda euh, ki nga xam ne itam moo nekk ci kanam mbooloo mi nga xamee ñoo amee fond bi ñëw na waxtaan wi ci heure boo xam ne heure bu ko ñëpp soxla ndax feeñal na façon ngi dimbalante yoo xam ne wax dëgg yàlla ñu bëri xamuñ ko woon te nag li façon yi bëri bëri bëri fii ñu toll situation yi ñu toll nga xam ne chrono virus bi dafa kor na lépp tegee ko côté nit ñi doon daw dépense pour luñ dépenson tey mu xaw a të waxtu yu manqué te loolu yëpp pour sécurité nit ñi la tey jii oo na ñëpp wax na leen lislaam daan na dem ba nga xam ne sax ndundat boo xam ne gëlëm goo xam ne mbaam moo xam ne dañ ko doon jëfandikoo ba amatu ñuñ ko nuñ sox ci moom soxla am na waqf yoo xam ne bi ñu paree ci doomu aadama yi ba kenn soxlaatul ak sa morom dara dañ leen daan dimbali waaye kon tey képp koo xam ne am nga ndimbal képp koo xam ne yaa ngi bëgg a taxaw taxawaayu Ousmane Ibn Affan képp koo xam ne yaa ngi amee milliards yi képp koo xam ne yaa ngi war a dimbalante Cheikh Mouhamadul Mahi joxe na leson boo xam ne joxe na kàddu goo xam ne mboolem luy lislaam wax ci dimbalante te lépp fi mu nekk ni nit ñu soxla nañ ko ci façon yu bëri yàlla yàlla may ñu dégg ak topp yàlla guddal fanam barkeel lépp loo xam ne li mooy ay ngëtum ak ay dalam kon ñu ngi koy wax jazakallahu xayran di ndokkeelaat jamiyatu ansaaru diin parce que gàmmu online ndekete nii la nekkee loo xam ne excellent la ndax kenn du wax sa moroom déglul te ñëpp danañ dégg danañ gis te itam li nga xam ne moom lañ bëgg ñu waxal ko ay borom xam-xam yoo xam ne kenn ku nekk ku ci jotal rek nga ne gonga foofu lañ soxla woon kon ñu waaj ànd ci beneen borom xam-xam ba ñuy àgg ci li nga ne mooy mottali gàmmu